لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون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 السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون huwa allahu alxaaliqu albaari'u almusawwiru lahu alasmaa'u alxusnaa yusabbihu lahu maa fi samaawaati wal ardi wa huwa alaziizu alxakiim da'waahum fiihaa subhaanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiihaa salaam wa axiru da'waahum ani alhamdulillahi rabbil aalamiin sadaqallaahu al-aziim. alhamdulillahi rabbil aalamiin salaatu wa salaamu ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin nabina muhammadin wa ala aalihi at-tayyibiin at-taahiriin wa taqabbal shafaa'atahu min ummatihi warfa' darajaatahu sallallahu alayhi wa alihi wa ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara ñoo ngi fii tey ji Grand Mbao daarul Qur'an wa tarbiyatul islaamiya ko jiite mooy suñu xarit suñu doomu ndey imaam Mouhamed Niang ñoo ngi nuyu xalifa at tijaani al aam mooy Seydi Aboubacar di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko suñu kanam ba mu fekkee naal ya nga xam ne moom la tàmbali incha allah noonu la ñu nuyoo tamit xaritam doomu ndeyam mooy Mouhamadin il Bachir Tall ayyadahu llahu wa nasarahu yal ko yàlla kàttanal moom tamit yàggal ko suñu kanam bi jaahi nabi al Mustafa sallallahu alayhi wa wa sallam ñu nuyu suñu xarit mooy ka nga xam ne moo boolek ak imaam Mouhamad Niang suñu xarit suñu sëriñ mooy Cherif Sidi Ahmed At-Tijaani xafizahu llahu waraahu ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala kàttanal ko moom lañu ñu waroon defal émission far mu am ngant ci diggante bi mu ne nag journée bi du mort foog mu boole ñu ka nga xam ne mooy xaritam wëllëram di doomu ndeyam mu boole ñak asayid imam Mouhamed Niang jiite fii daara alquraanul karim fii ci Grand Mbao ñu fekk ko fi fa tabaarakallah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 laa nuxsi sanaan alayhi wa kama asna ala nafsi wasalaatu wasalaamu ala bashiri nazir saydi lawalina wal axirin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum wa tabiahim bi ixsaanin wa irshaadin ila yowmi ddin wa radia allahu an kibrit al ahmar saaxibi almaqaami alxatmi walkatmi abil fuyudaati sayidi ahmad bna mahamad bni saani min tijaani alsharif alxasani radiyallahu taala anhu saqaana allahu min buxuuri anwaarihi bi azami alawaani wa jamia xulafaihi wa muqaddamihi ridan la suxta baadahu abada wa baadu ayha almusaahiduuna alkiram mushaahidina alkiram fi qanaati Ayni Maadi TV nuxayikum bi taxiyati alislaam almunazzalu min indillaah alaa wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu mbokk yi nga xam ni ñoo ñuy suivre tabaarakallaahu ci aynu Mady TV ginnaaw bi ñu musal seytaane ak bakkan ñi ngi sant yàlla borom bi subhaanahu wa taala sàkku ci moom mu julli ñu ci sang-sang yi di mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di bakk di kañ suñu sëriñ sëriñu sëriñ si di cheikhuna ahmed tijaani radiallahu taala anhu mi nga xam ni mooy waasitatul uzma tabaarakallaahu waaye suñu bunt ca moom ji maam Cheikh Alxaaji Malik radiallahu taala anhu ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jël suñu nuyoo teg ko ci loxo Abdul Aziz nuyu alxalifa al cheikh saydi aboubacar si mohamadunil mansour xafisahullahu wa raahu wa ayadahu wa nasara ak mbooleem ay rakkam mbooleem usratul malik ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax tabaarakallahu niyaabatan an sadiqi wa seexi tabaarakallaahu a Cheikh Seydi Ahmed Tidiane si Haydara al Makki muy Serigne Seydi Ahmed Tidiane Makki tabaarakallaahu moom la ñuy jéem a wuutu xam naa ni danañ lott ci wuutu ko waaye ñu jéem rek tabaarakallaahu suñu kemtalaay kàttanam ah, tabaarakallaahu mbokkam xaritam ah, moom Mouhamed rek la ñuy wooye waaye tur bi nag oustaz Pape Niang mbër tabaarakallaahu mooy tur bi ah macha allah ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di nuyu waa Aïdu Mady TV tabarakallahu di ko teg ci loxo suñu sëriñ tabarakallahu suñu wéyjur di suñu kilifa di Abdou Fati Niang tabarakallahu tegal ñu ci loxo sëriñ Habib si da ñaanal ko yàlla moom it yàlla doole guddal fanam yokk wéram tabarakallahu ñu ngi nuyu waa Aïdu Mady TV ñu xam ne fii ñëw nag attu sëriñ Abdou Fati mi ngeen ñëw. tabaarakallah ndax ay way juróom li ñu nekk ci ñun ah ay way juróom moo ko ñoo ko def ci ñun muy muy muy rakku magu papaam moo ñu tudd muy sëriñ maam Bachir Niang ah, rakku papaam di sëriñ Aline Niang moo ñu jàngal kon tabaarakallahu fi ngeen ñëw nag mooy attum abdu maam Abdou di suñu way ji di suñu sëriñ tabaarakallahu ñu ngi nuyu waa Aïnou Mady TV yëpp di leen dalal ci fii nga xam ni mooy daarul maarifa di tahfizul quraanil karim wa tarbiyatul islamiya ñu nekk fi si suñu ndigalu ay kilifa ah, rawatina nag suñ sëriñ biñ nekkal fii di sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Niang tabaarakallaahu ah, xayaakum allah wa bayaakum fadilatul imam ah, kàddu yi rafet na leer na neex na fa tabaarakallah comme ni nga ko waxee rek invité bi moo nekkoon Cherif Sayid Ahmed Tidiane mu am ngant si diggante bi mu yabal la fi incha allahu rabbi nga def ak ñun émission bi émission bi nag li ñu bëggoon xam mooy kan mooy Cheikh Tidiane yi dëgg dëgg xaqiqatu Cheikh Tidiane lañu bëgg a xam si. waaw tabaarakallahu sëriñ Abdul xam naa ni dëgg-dëgg Cheikh na Tidiane radiyallahu taala anhu eh, xam ko dina jafe radiyallahu taala anhu ndax eh, al maktum moom kenn xamu ko. dëgg-dëggam ndax eh, yàlla daf ko takkal ay garaat yoo xam ni pour ñu xam kan mooy Cheikh Tidiane yi dëgg-dëgg dafay jafe ndax dafa nekk koo xam ni mooy wasitatul uzma bi nga xam ni moo dox ci diggante yonent yi ak awliya yi comme ne comme moom Cheikh na Tidiane radiyallahu taala anhu nim ko waxee kullu ma faadama wa baraza min zaati sayidil wujudi min zaati llahi yatalaqahu zawatu zaati sayidil wujudi waaye wa kullu ma faada wa baraza min zaati sayidil wujudi yatalaqahu zawatul anbiya waaye wa kullu ma faada wa baraza min zawatul anbiya yatalaqahu zaati wa bi yatafarraqu ila jamii alxalaiqi min ladun aadama ila nafqi suur wala Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu kon ku tol noonu xam dëgg-dëggam dina jafe ndax am na ay maratib yoo xam ni ah, la na ko moom Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu martaba yooyu tax na pour ñu xam kan mooy Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu dafay jafe waaye ñu xam ci moom tuuti ci ni ni moom. dafa am wiraasa moom Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wiraasa boobu néew na koo xam ni am na ko xam nga wa alama allahu haadina nubuwatahu wa kaana aadamu bayna nafsi wa nasami la maam Cheikh Alhaaj Maay radiallahu taala anhu wax ca xilaas ba waaye doomam ja xalifaam ba Cheikh Seydi Aboubacar Sy radiallahu taala anhu wax ni qutbul wujudi alladi abda wilayatahu rabbi wa aadamu bayna al maai loolu wiraasa la euh, cheikhuna tidiane radiallahu taala ana am ko fa ko maamam amee waaye fa ko kamu donn amee radiallahu taala anhu moo tax ñu xam ko dëgg-dëgg dina jafe moo tax nag euh, xam ci lenn ci limu fa mu juddoo euh, radiallahu taala anhu ci gàttal taarif cheikh tidiane radiallahu taala anhu juddoo na ci dëkku xam-xam dëkku leer xëyul xëy rek Cheikh Tidiane mel ni mu mel waaye boo jëlee ay maamam eh, ba ci rasulillahi sallallahu alayhi wa moom Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu da gis ni li mu am war na koo am ndax sët la ci Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu xisiyan wa maanawiyan wa ruuxiyan donn na ko ci deret waaye donn ko ci xam-xam waaye doon ko ci ruux moom Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu comme ni ko Cheikh Tidiane ni ko yonent bi salaam ni ko anta waladi wa anta waladi xaqan waaw sama doom dëgg nga moom Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu waaye moom Cheikh soob na yàlla yonent bi sallallahu alayhi gane àdduna waaye mu soob moom mu gane àdduna ci dëkk bu ñuy wax Aynul di ci atum junni ak téeméer ak juróom fukk ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa fa la ganee adduwa adduna tabaarakallaahu ci ay wayjuru yoo xamante ni nii wayjuru yu tedd tabaarakallaahu ci la ganee adduna moom Cheikh Tidiane radiallahu ci côté wayjuram wu góor waaye ci côté li nga xamante ni nii moom mooy wayjuram wu jigéen nga xamante si ni ñoom ñaar tabaarakallahu boo jëlee wéy juróom góor nga xamante si ni tabaarakallahu boroom xam-xam bu mag la eh, ñu koy wax tabaarakallahu aalimul kabirul waliyu shahir saydi mahammad bi fatxil miimi tabaarakallahu ibnu muhammad muxtaar ibnu ahmed ba ci eh, da koy jël wasilaam silsilaam boobu ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, kooku mooy way juróom wu góor nga xam ni boroom xam-xam bu mag la waaye way juróom wu jigéen timitam nit jigéen ju baax la fa hiya waliyatun saalihatun zaatu tijaari arrabiha assayidi aisha bintu wali jalil abi abdillahi sayidi mohammad ibnu sanusi attijaani almadawi tabaarakallahu kooku mooy way juróom wu jigéen ci ñooñu nag ci la cheikhuna tijaani radiallahu taala anhu jaal eh, tabaarakallahu ba gane àdduna comme ni ko boroom muniyatul murid wax man man jabat xawdatun min algawaani fi kulli ma mada min alzamaani ka misli ummi cheikhina ti cheikhuna rabbaani aïchatu tahiratu lxasaani radiallahu taala anhum fi mu jaar mm-hmm. nga xam ni bu ñu bëggee tudd lépp émission bi sax duñu ko may ci ñooñu ci la jaar gane àdduna moom Cheikh Tidiane ci at moomu waaye yàlla wër wërsëgal ko moom Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu at mi mu ganee àdduna mu dem ci màkka tabaarakallahu ànd ak ay juróom dem màkka ba bi muy ganee àdduna ba bi muy am juróom-ñaari at at mu jot dina dem màkka ndax at mu jot waajuram yi <coughs> dem màkka waaye yóbbaale ko moom Cheikh Tidiane yi mu am juróom-ñaari at yoo xam ne dem na ci màkka waaye yàlla defal ko ko moom itam Cheikh Tidiane it radiyallahu taala tawfiq muy ci bi juróom-ñaari at yi di mat mu mokkal alquran loolu nag xam naa ni ba mu koy def ñi nga xam ni tey eh, seen suuxlu yëpp moom mooy al inkaar diñ ko weddi woon waaye jamono ji nga xam ni ñu toll nii nga xamante si ni fii nga ñëw di internat eh, tabaarakallah ñu ko doon weddi jamono ji ñoom ñoo ñooy iqraar <coughs> fan yi da dégg sax ñuy wax ay xale yoo xamante si nii tabaarakallaa di tudd ci ñoom ay yenn yoo xam ne daanaka ay karaama lañ koy tuddee ci ñoom te ñoo ñu weddil ko nit yàlla bu ni Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu kon ci juróom-ñaareel atam Cheikh Tidiane mokkal na alquran ah li ñu miin nit bu mokkalee alquran radiallahu taala mokkal ko nag mokkal boo xam ni yamowul ak benn mokkal waaw ndax wax nañ ni sëriñ bi ko jàngal alquran gént na gis borom bi subhanahu wa taala mu jàng alquran ci riwaaya warsh mu ni hakada nazalat ni nii la wàcce tabaarakallahu moom nag cheikhuna ahmed tidiane radiallahu taala anhu nag moom mu mokkal alquran ci juróom-ñaareel atam waaye <clears throat> ci mokkal bu ko kenn mokkalewul mu sóobu tabaarakallahu ci jàng xam-xam bi nga xam ni moom la ñu miin ñun ñëpp muy xam-xamu diini di xam-xamu fiq di xam-xamu mboolem funuuni ilmiya Cheikh Tidiane radiyallahu taala an foofu la jaar jàng ko lépp lu ñu war a jàng ci xeetu fànni xam-xam rek Cheikh Tidiane radiyallahu taala jàng na ko moo xam fiq la moo xam bayaan la moo xam mantiq la moo xam badia la moo xam naxwu la tabaarakallahu moo xam usul la mboolem nu xeeti fànni xam-xam loo xam ne seet dañ ko war a jàng rek pour nekk borom xam Cheikh Tidiane radiyallahu jàng na ko ci diir bu mu mokkalee alquran bi muy am fukki at ak juróom benn tabaarakallahu daanaka li ëpp ci xeeti xam fànni xam-xam yi jàng na ko ah wéy juróom nag radiyallahu anhu daal di ko tànnal soxna tabaarakallahu <coughs> ci fukki at ak juróom daanaka benn at lañ ci teg wéy juróom ñaari way juróom daal di génn àdduna tabaarakallahu way juróom yu tedd yooyu ci eh, tabaarakallahu ci taaxut boo xam ni feebar boo xam ni amoon na ñoom ñaar ñëpp daal di ci génn àdduna ci benn bis ci benn ngoon ah ñooña nag eh, bi ñu bi mu leen defee ni leen war a defal mooy denc leen tabaarakallahu taxawu leen ah ci la eh, yeew yi soxna si mu yoroon tabaarakallahu ngir mën a gën a soxla wax fànn xam-xam ñeenti at rek la ci teg juróomi at am ñaar fukki at ak benn lépp loo xam ni doomu soxna di jàng na ko Cheikh Tidiane radiyallahu taala jeexal na ko muy feet muy xalil ak tabarakallahu xeeti fànni xam-xam yépp Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu daal di ko peeg ah, bi mu peegee feeti xeeti fànni xam-xam man nga ni yegg na doctorat ci la waxe ni taqat himmati nag ila ahlillah waaw ah, mu ni nag sama yitte yëkkatiku ne nag ah jot na nag ma seeti Ah, gaañu yàlla yi tabaarakallahu comme ni nga xamante si ni nit yàlla yépp hmm. ah, noonu lañ koy defee bu ñu tollee ci fenn fi ñu xam ni war a def am na lu war ci ñoom ci lu ñu war a taxawee ah, ñu war a seeti nag suufi yanke yu mag yi tabaarakallahu nit yàlla bi mu njëkk a dajal du ñu ci nekk di ngir guddal pour gagner temps hmm. ci tudd tur ya tabaarakallahu ndax dina jël waxtu wu bari def ko laaj ma ka mu ni ko matlabi xutba xutbaaniyatul uzma mu ni ko laka aktharu min zalika mhm. ah, lan mooy sa sàkkuteef mu ni xutbaaniyatul uzma de laa bëgg nit yàlla bi ne li nga liñ la dencal moo ëpp loolu xam nga bu fekkoon ni Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu nekk na kuy yaafus mhm. foofu lay wàññeekoo dem toog mhm. kuy wut ah doctorat ñu ni la am nga la ëpp doctorat am nga agréé mm-hmm. ah, kon kon looy def da ngay toog waaye moom deful lool dafa continuer di talabu ahlillaahi di sàkku gaañi yàlla yi ndax aadatu kulli abidin awaa loolu moom mooy aada bépp jaamukatu yàlla boo xam ni am nga foo bëgg a yegg ca la continuer tabaarakallah moom cheikh na tijaani radiallahu taala an di topp nit yàlla yi di leen topp fu nekk mu dugg fa fu nekk rek cheikh tijaani radiallahu taala jaar na fa ba ni mu demee misra di Égypte tabaarakallaahu daje fa ak nitu yàlla bi ci ixtisaar tabaarakallaahu muy Sid Mahmoud al Kurdi tabaarakallaahu foofa nag ca la nekke ah mu dem ah, nitu yàlla bi Sid Mahmoud Kurdi ah nga xam ni moo nekkoon tarixatul xalwetiya nga xam ni mu yéemu na ci Cheikh Tidiane radiyallaahu taala lool ah mu nekk fa ak moom noonu la fa nekk ak moom ba ni diir bi mu fay nekk ba ni fa la jógee dem aji màkka tàggu booba sëriñam Sidi Mahmoud Kurdi moo nekkoon sëriñam mu tàggu ko mu garantu ko dem Makka dem ak ñëw ca yoon wa nit yàlla yam fa dajal am na ci kum fa dajal koo xam ni gisantewu moom moom mu shafatan wala waaye dafa gisante ak moom mu kàtta ba tabaarakallaahu kooku jël léppam daal di jox ko Cheikh Tidiane ndax Cheikh la doon xaar radiallahu anhu eh, ba ni mu demee nag def aju mok mottili aju farataam waaw li aju farataam daaye dem nag ziyaare maamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah bi mu ziyaare maamam ah dolleekuwaat ci ay leer ak ay tëjëliyaat ak anwaar ndax ñoom ak ñun bokkuñu ñun bu ñu demee rek danañ toog ziyaare ji donte dinañ dolleeku waaye nag dolleeku ba du bokk ak dolleeku ba nit yàlla yi di dolleeku tabaarakallaahu ba mu ñëwaatee nag daal di tourné waat dellusiwaat Égypte ah sëriñam ba mu fa bàyyi woon gën a dolleeku shawq gën a yëg ni kii demoon kat ñëw na waaye nag am na lu mu indaale ndax fa mu jóge am na lu mu fa jële am na wiraasa bu mu fa am moom Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu mu daal di dajale nag mbooleem borom xam-xam yi nga xam ne Égypte ndax xam ne boobu jamono jooju Égypte dafa bokk ci dëkk yi nga xam ne xam-xam dafa yàgg ci bi anbiyaaw yeeg mursalin yi tabaarakallaahu dafa yàgg a nekk dëkku xam-xam ah nitu yàlla yi di ñëw lu leen jafe ci masala boo demee Cheikh Tidiane radiyallahu taala moo leen ci ubbee radiyallahu taala anu ah eh, mu daal dollee ko ak cofeelam ba ñu bëgg ko suub ci tarixa boobu mu waaye nanguwul ca la fa jege nag tàggoo fa daal di dellowaat maghrib ah diggante chargé la tabaraka ak tilmisaan di fa baagante ah tabarakallahu def nañ ko nag muqaddam ci tarixa boobu moom la suñu maam Cheikh Alxaaji Maalik radiallahu taala anhu di wax ca faaka wa baadama qaddamaha alkurdiyu ra annabi Mustafa sawiyu ah, safiyu tabaarakallaahu ginnaaw bi nga xamante si ni tabaarakallaahu Sidi Mahmoud ah, alkurdi def na ko defal na ko taqdiim ah ci la gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah yaqazatan nag waaw yaqazatan laa manaaman ah, ñooñu nag am na ñoo xam ni tey boo leen waxee loolu Eh, ñi daal di ko weddi tabaarakallaahu waaye yonent bi sallallaahu xarit ba tabaarakallaahu Sidi eh, Mouhamed Gueye eh, mbuur te mu nekk mbuur tabaarakallaahu xam ngeen ko aalimu kabir boobu dalaloon nañ ko ci mu wax ci mu def ci lu waxtaan wu am solo ci ru'yatu nabi sallallaahu alayhi wa sallam yaqazatan laa manaaman bil adilla teg ko ci ay adilla yu wér maam Seydi Hadj Maalik nag wax ni ku toll ni Seydi Hadj rek doy sëkk ci dalil waxam dafa nekk wax boo xam dañ koy itibaar ci xam-xam moo tax mu ni ginnaaw ba nga xamante si ni Sidi Mahmoud eh, taqdiimal na ko ci la gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante si sin annabiyul mustafa al safiyu wa qaala la minnata li maxluqin mu ni ko amul benn min na muy cër wala may boo xamante si da nga ko jële ci mbindeef yi alayka min al mashayiq Euh, ak tariqa ñi nga xamante si ni ñoo yor tariqa amul lenn looy jëlee ci ñoom jamono ji lan la ko wax ni ko ana murabbika man yeneen bi salaay salaam may ki nga xam ni maa lay yar wa anta di yaay sama doom ah wa wa cheikhuka maay sa sëriñ bi nga xamante ni al abar kulla musnadi waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, ko xamante si ni tariqa bi nga xam ni Cheikh Tidiane moom lay moom lay jàppoon muy tariqatul xalwatiya dañ lay wax silsile bi ba ci yonent bi sallallahu alayhi nekkul tarixa boo xamante ni Sidi Mahmoud Kurdi yi daf ko jëlee ci yonent bi direct déedéet daf ko jëlee ci diw an fulaan an fulaan an fulaan an fulaan an fulaan an fulaan dem ba ci xasanul basri waaye dem ba ci yenenti bi sallallahu jëm bi seyd Seydina Ali yi mu jëlee ko ci yenenti bi kon boo gisee ñi nga xamante si nii nag seen xam-xam néew na ñuy weddi tabaarakallaahu jàpp ni tarixa dafa xëy rek sosu te xamuñu tarixa aslu bi mi ngi jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqaza ba ko Seydina Ali ni ko allim ni xamal na naka laay tuddee mun xam na ni alquran wàcc na wa zakirina zakirat tabarakallahu alladina yazkuruna allaha qiyaman wa loolu yëpp alquran na ko waaye mu ñëw ci yonent bi laajaat ko te yonent bi moo ni ana madinatul ilmi wa aliyun baabuha xam bu dee ay njënd di ay dëkk aliin mooy mooy bunt ba kon kook am na xam-xam bu ñëwee ci yonent bi sallallahu sa wasallam ni ko allim nii xamal na naka lay tuddee yàlla am na leneen lu mu moo tax mu ni ko nag bàyyil man maay ki nga xam ni mam maay sa sëriñ mam maay ki nga xamante si moo tax mu ni ko watruk kon am na lu cheikh yoroon mu ni ko otruk jamia ma bihi axadta xata tafuuzu kullu ma waidta min xayri xalwatin wala tizalin subhaana rabbi daaimul kamaali ni ko bàyyil nag waaw ni ko bàyyil lépp loo xamante si ni jëlan ko ko ci sëriñ si waaw moo tax Cheikh Tidiane qabla liqaai jaddihi wa Cheikh Tidiane baada liqaai jaddihi laysa balaa muy dajeeg maamam ak Cheikh Tidiane ginnaaw bi mu dajeeg maamam ñaar yooyu nekkul benn waaye dafa ni ko lépp loo jaroon tegal fële ba nga tuufu ci lépp loo xamante si ni war naa ko jëflanteeg yow jox la ko waaw te nag li ma lay jox xalwa xam nga ni boo demee ci kutubul mutasawifuna yi pour nga yegg ci yàlla nekk nekk koo xamante si ni aarif billahi alwasil am na ay xalawaat yoo xamante si ni danga koy def am na xalwa yoo xam ne ñeent fukki fan la ak benn am na yoo xam ne ñeent fukki fan la boo demee xalwa yi tabaarakallah am na bu ma ci liiroon ah, boo koy def miisu mburu bi fukki fan yi njëkk yi moom ngay xaaj tabaarakallaahu benn bi moom ngay xëddee beneen bi ngay ndogoo ak tuuti fiir wi beneen bi da ngay xaaj benn bi fukki fan yeneen yi ci topp da nga koy xaaj ci digg bi bii ngay xëddee bii ngay ndogoo ak tuuti tabaarakallaahu fiir wi beneen bi da ngay xaajaat mburu bi fukki fan yu mujj yi doo lekk dara ndox rek ngay jëfandikoo pour nga mën a yegg ci yàlla waaye Cheikh Tidiane radiyallahu taala an tariqam bi nag mm-hmm. nee na nag min xayri xalwatin doo ko di nga yegg ci yàlla waaye doo ko def te du du doo am du am xalwa wala atisaani du du da ngay jar beru beru ci àll bi wala ngay beru nit ñi doo ko def dégg nga eh, kon nag yàlla mi nga xamante si ni moo tax Seydi Haaj Maalik mottilee ko ni subhaana rabbi daa imul kamal yàlla mi nga xamante si ni moom kat dafa sax tabaarakallaahu ci mat foofu la Cheikh Tidiane nag jot nag tabaarakallaahu jox ko tariqa bi gis na yent bi yàqasatan mu def ko talqin ci tariqa bi ci anam bi mu ko ko joxe tabaarakallaahu ba ni mu dollee laa ilaha illallah bi mu dikk nag Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu dox léegi nag boobu mu ngi toll ci maqaam boo xam Cheikh Tidiane dafa doon beru nit ñi du bëgg jaxasoo ak nit ñi mm. ñaari nit ñett buñ buñ ñëw ci moom tabaarakallaahu dafa lay beru moom Cheikh Tidiane ci la ci yonent bi sallallahu alayhi nag waxe te Seydi Hadji Malick daal di ko way ci amara nabi imaamana bi tanazulin bi ivadatil axlaaqi bi werdil jëli waaw ni ko nag ah il faut nag nga wàcc daal di mën a jariñ nit ñi waaw ni ko nag dangay ngay wàcc ci jariñ nit ñi ci werd bii nga xam ni day jariñ tabaarakallaahu ndax bi nga xamante si ni moom Cheikh Tidiane radiallahu taala jël na werd wi xam naa nag dañoo tënk rek ndax lu baree bari dañ ko dañ dañ ko tëb ngir ngir gagner temps bi nga xam ni jox na ko werd wi tabaarakallaahu mu war a jariñ nit ñi moom Cheikh Tidiane radiallahu taala ci lu ko digale loolu ndax dafa ni ko pour ma bàyyi li ma yor bu fekkee nekk naa in kuntu baaban lin najaati waaw bu fekkoon nag nekk naa baaban boo xamante si ni damay jariñ fana am bu dee nag wa illa fa ayu fadlin bu fekkee nag nekkuma baaban li najaay li kulli aasin ci képp koo xamante si ni même dangay ngay mooy boo ñëwee ci man jël sama werd wi da nga da nga texe bu fekkee nekkul lool nag ban fa ban ngëneel maamam daal di ko nangul tabaarakallaahu ndax nag mooy waasita marajal baxrayni